Yeah. asalaamaaleykum mbokki internet yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Info 7 TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jaajëfal tey nag ñu ngi àddoo ci dëkk bu sell bi di Touba Cumbuleen nekk ci région de Thiès ci département bu Tivaouane ci commune bu Ñaaxeen euh, tey nag li ñu fi andi mooy ñaanuk Mame Massamba Anta Diouf Mame Massamba nag ñëpp ràññee ko ci tund wi nga xam ne fi la nekk tey ji nag euh, bi ñu koree ba bis bi dellu si tey jii ci samedi bi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ci atum 2023 ci lañ koy fàttaliku fi nga xam ni moom mooy Touba Cumbuleen jamono ngeen di teewlu ñu ngi amal li nga xam ne mooy wàcceem kaamil mi ñu ngi taxaw ak sëñ Abdou Bey ak euh, sëñ Malick Thiam nga xam ne ñoom ñëpp sëti maam Masamba Anta Diouf lañ sëñ Abdou ñu ngi lay ziar bu baax ñun waa Info 7 maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal ak jàmm di am mbégte bu baax a baax ci bis bi nga xam ne tey amal nañ ko fii ci Touba Cumbuleen mu nekk euh, bis bu am solo nga xam ne dañ ci fàttaliku kenn ci suñu maam yi muy sëñ Masamba Anta Diouf Euh, sëñ Massamba ku jar a fàttaliku la ndax dafa am lu mu def ci histoire murit ndax ku ko xam ak njabootu maam boroom Touba xam ni moom jàmbaar la woon kon nag kookee bu demee ba nga xam ni euh, njabootam ñoo ko daan fàttaliku ñun set yi ñu góorgóorlu ñu ni dañuy gën a jëmmal li nga xam ni loolu la fi mag ñi bàyyi woon loolu lu am solo la ndax suñu maam jar na ko jar na sax lu ko ëpp ndax ci histoire nga xam ni fàttaliku nit ki nga xam ne jóge na fi dafa am solo lool loolu moom lu mat a bàyyi xel la rawatina koo xam ni liggéey na ko ndax booy xool ñi nga xam ni li firnde ji maanaam ci bisu tey jii ak euh, li wër tund yi nga xam ne yeneen programme am na yoo xam ne dañ ci def ñoom sax ay seeni programme nga xam ne mën nañ ko tuddee sax ay tuuru famille comme méngal ko ñun nag dañoo am loo xam ne c'est spécial lu spécial yombul nga xam ni dañoo am loo xam ni kenn amu ko ndax dañoo am suñu maam joo xam ne liggéeyoon na fi liggéey bu am solo nga xam ni demoon na ba nga xam ni njabootu maam borom Touba jaxasoo ñoom lool lool lool lool ba lu ne ñu defaloon ko ko ca Touba. kon nag ñun am nañ loo xam ni lu jara fonk la xam naa nag euh, ñeneen buñ ko amoon dinañ ko dinañ xam ni ñu am mais ñun dañu am loo xam ni tamit euh, bàyyiwuñu ci xel bu baax a baax a baax te lu mat a bàyyiwaat xel la nag muy lu ñu am nii muy suñu maam ji nga xam ni ñu ngi koy fàttaliku korite ba bis ba dellu si. boo xoolee tund yi bari na daje yoo xam ne ñu ngi ko fi amal fi mu toll nii ay tour de famille lañ ko tuddee ñoom di woote ngir dajale seen mbooloo mbooloo moomee nag moom falilaa alhamdu waaye ñun nag dañoo am loo xam ni yàlla moo ñu ko sedde mooy dañuy daje ñaanal suñu maam ñaanal ak njabootam gi nga xam ni ñoom ñoo ñu leen jiitu barsàq te loolu moom laam xaalal la mënul ñàkk ndax ñun ñoo fi nekk tey di leen ñaanal ëllëg xamuñu kenn moo fi nekk kon nag nañ ci jàppaat bu baax a baax gën cee góor góorgóorlu xam ni eh, luñ ci def rek am naa njort lu rafet nii dañ koy gën a mën waaw te te te teñ gën cee góorgóorlu ndax moom àdduna nii rek la waaw nii rek la te suñ maam nag da koo jar nag wax dëgg yàlla suñ maam da koo jar yenn saa yi bul na ne kuy sa maam sëñ ma sàmbante Juuf ci cumbuleen wax dëgg yàlla jar na ko jar na ko lool lool lool man sama waajur dafa ma daan wax naan euh, daf ma doon wax ci sama maam lu bëree bëri bëri ba may nekk tu tànk ba ma naan ko sama yaay kooku moom mooy kan mun a ma kooku de mooy sa maam yenn saa yi moo yoo xam ne sax daanaka xam nga gone rek li muy jàpp bëriwul waaye dama daan wax nangam ak nangam sa maam ay gileem ay nagam nangam ci yu baax yoo xam ne daanaka def ci tund wi nga xam ni fii ci tund Kajoor moom moom mag ñi moom euh, duñ réere kan mooy maam Masamba Anta juuf duñ ko réere moom xanaa kay ñun ndaw ñi ak ñeneen ñi fi des ku fi nekk rek fii ni ci tund yi am na lum la defal am na tiraanga jum la ji waaw am na tiraanga jum la ji mag ñi nag ñoom ñooy dem bay jeex ci tund yi nga xam ni gone yi ñoo fi des te gone yi nag bu ñuy des tamit euh, dañuy fàtte lu bëree bëri ci histoire kon ñun ñi nga xam ñoo fi ndaw ay génération nekk fi ñoo war a dundal loolu gën a jëmmal loolu nga xam ne génération yii fi nekk tey ëllëg bu ne cumbuleen luñ fay fàttaliku ñu ni Mame Matar Amba de lañ fay fàttaliku ñu ni ñu koy def ñu ni ay sëtama koy def ñu ni lan moo tax ñu di koy def ñu ni ah bu fekkente ni mag am na ci ñoom koo xam ne xamoon na histoire bi mun leen ah kooku de seen maam jàmbaar la woon seen maam ay kim ay bare woon nay mbir daal loolu rek moom mooy mbir mi te nañ ci waat xel daal bu baax a baax a baax sëñ Mor Diouf jërëjëf euh, sëñ Abdoul Beye kàddu yi am na solo macha allah bu nga ko déggee rek xam ni euh, góor gi nga xam ni moom la ñuy fàttaliku fii di maam Mame Massamba Anta juf euh, jàmbaar la woon nekkoon na koo xam ne ku ñu ràññee ci tund wi la ñu xamoon ko ci li ëpp solo mooy mbay ak sàmm mu ci doon def lu am solo ba tund wi ñëpp xamoon ko ñu ngi ab ba tey ak beneen sëtam di sëñ Malick Thiam sëñ Malick tey ñuy fàttaliku sa maam maam Mame Massamba Anta Diouf. jërëjëf sëriñ Mor ci. laaj bu am solo boobu <clears throat> mu mel ni tey ñu ngi koy jëmmalaat di ko def euh, comme ni ñu ko daan defee rek at mu nekk bi ñu doonee ay tuut tànk ba léegi ñu fekkoon suñuy waajur di ko def euh, tey jii ñu koy def mu mel ni li ci ëpp solo suñu diggante suñu maam ak euh, njabootuk Seexul Xaddim ku mel ni suñu Abdou Bey biral na ci lu bëree bëri ba tax na jëratul ñu di ci jaaraat ndax mbir mi dafa yaatu ba lenn lu ci nekk war nañ caa mën a joox kon dañuy daal di jox ci ñi nga xamante ni si rek euh, moo di sët yi ak doom yi nga xamante ni si moom la fi bàyyee euh, ñu loolu wolof yi di wax naan pusa képp ku ko mujjee te réerul rek jël nga ndam la euh, kon ñu fexe rek ñun ñi nga xamante ni si ay ndaw lañ di ay sët ñu góorgóorlu ci ba bu ñu mujjee pusa bi rek mu réer na ñu fexe bu ñu mujjee pusa bi rek doole ko pusa yi yokku kon loolu lañuy ñaan yàlla di soññiwaat ndaw ñi nga xamante ni si ay sët lañ ci bis bi nga xamante ni si seen bisu maam la mu doon bis boo xamante ni si du bis bu ñuy jéggaani euh, du bis boo xamante ni si dañ koy jàppalub dat waaye bis la boo xamante ni si ci weeru koor lay doon weeru weer wi nga xamante ni si ànd naa weeru korité wi euh, muy korité ba bis bi del si nga xam ne dañoo juddu fekk suñuy bàyyi di ko def kon ñun sët yi nga xamante ni si ñoom la ñu tolloon ñu ngi koy def tey dañuy ñaan ëllëg ki si biir suñuy doom ñoom bu ñu ñëwee di ko def ndax bis boobu doonut bis boo xamante ni si bis bu ñuy toxal la kon yaakaar naa ni sët yi nga xamante ni si ñoo fi nekk fi mu ne nii ak sët yi ñëw ëllëg euh, ñu bàyyi ko xel rek ba kenn ku ci nekk war ngaa mën a soññ sa bopp ci bis bi euh, am ci taxawaay boo xamante ni si kenn du ko ci am ndax loolu Abdou Bey wax ni waajuram daana ko nettali lu bëree bëri euh, noonu la ma ko sama waajur daan nettalee ñeneen i jàmbur yi doon ma ko nettalee lib jàmbur di nekk ci àll bi nag di ko nettali ci sa maam da góorgóorlu yow mi nga xamante ni si ab sët nga ci kër gi la jàmburee di nettali fekk loolee ci sa biir kër bu ëllëgee si biir bu ñu doxee ba agsi fa kat xam ni ah wax dëgg yàlla kat diw de la mu doon nettali ci maami diw vraiment ba ñu demee ci kër ga loolee la ñu fekk ci kër ga euh, kon ñu soññiwaat euh, ndaw ñi rek bu ko defee ñu gën a góorgóorlu rek ci li nga xamante ni si moo di bis bi euh, jëmmal ko bu baax a baax ba ëllëgati si biir ñu gën raw suñu moroom rek ndax raw mu mënta passé saa yu at mi ñëwee nga fexe ñaanal sa maam loolu ak cant la kon ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom ñëpp rek ndaw ñi suñu borom dafa leen sandot daare ni may ñu wér may ñu wërsëg may ñu gudd fan laq ñu fi yàq yëgut musal ñu ci musiba ak bala ak seytaane ci barki Cheikhul Khadim kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ziare info 7 bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom euh, mu lawal ay bànqaasam euh, ci réew mi ba fépp foo xamante ak bitim réew lépp loo xamante ni si rek euh, lu ñu war a jàllale la képp koo xamante ni si loo war a jàllale la nga bàyyi xel info 7 bu baax a baax te xam ni lépp luy xibaar information rek mën na fay jaare ñu jëmale ko ca kanam incha allah suñu Mor Diouf waaw jërëjëf sëñ Malick Thiam ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal sëñ Abdou Bey kàddu yi am na solo dëkk bi nga xam ne fi la ñu nekk nga Touba Cumbuleen euh, ci pencu Maam Masamba Anta Diouf nga xam ni euh, ndeysaan macha allah sëtam yi tamit euh, wax dëgg yàlla macha allah ñaan gi bu ñëwee dañ ci farlu lool fu ne la ñuy jóge ci gox yi fasantikoo ci réewum Sénégal ña nekk bitim réew tamit macha allah di ci dugal seen loxo bu baax ba tax na ñu ngi jaajëfal ñëpp rek di ñaan ñu teewe ko ay ati at xam naa bu ngeen ñu toppee incha allah dinañ dugg ci biir kër gi lépp loo xam ne rek ruus na fii nga xam ne mooy Touba Cumbuleen incha allah bu ngeen ñu toppee ci Info 7 TV ko mën am ñu ngi jaajëfal baax suñu cameraman bi ñu àndal sëñ Mor Kane El Hadj Mor Diouf àndoon ak Abdou Bey ak sëñ Malick Thiam ci kàddu gi jaa ngeen jëf wéy leen di ànd ak ñun di abonné tey laal kolos bi fii rek la. ah mu yónni ma ay kàddu yoo xam ne nee na xolam sedd na sedd boo xam ne daal mun ko wax ndax kër gi moo ci gën di xale ay magam fi nekkoon magam yi fi nekkoon it nag bis bi ñu ko daan le maam Masamba Anta mi ko jur nga xam ni yaa nit ku yàlla teraloon te fii mooy wala wu sant Sylla ak wu sant Mbacke ak wu sant Fall kenn ku ne nekkan fii kon nee na loolu mu ngi nii ngeen ko defal nee na am na fu mu fu mu toll moom lool ndax jamono bi ni mu xate ak ni mu mel képp ku ñu indil di la wàccal alxuraan ku la bëgg te nee na mun ko fay nee na mi nga ànd ak bokkam yi ak magam yi ak rakkam yi yëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw lépp loo xam ne laal na ci maam Masamba Anta ak magam yu baax yi fi jóge muy commencé ci gumba muy kër gi nee daal mi ngi leen sant di leen ñaanal ab sëriñ nag lii rek la mën ab taal bi ndax jamono bi xat na xat goo xam ni arxuraan mooy lépp arxuraan mooy lépp jamono bi fi mu toll lépp bu fekkee tey jël nañ arxuraan teg suñu kanam jafe-jafe yëpp dara du ci am kon nee na kër baayam gii néeg baayam bi ngeen ñëw di fàcc arxuraan ji nee na leen a fay nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa yàlla bàyyi leen fi ngeen yàgg ko wér ngeen wér te ànd moom bis bi maam nee na xolam sedd na ndax lii mënulu ko boppam benn araf alxuraan rek kenn mënu ko fay benn araf rek kenn mënu ko fay kon nee na mi ngi ñaan ci barke seen maam ya yu baaxee yal na yàlla guddal seen fan ngeen yàgg fee daje yàgg koo def ah maanu ko yéen nag ba abadan ndax kat nee na xolam sedd na guy mënut a wax daw mënut a wax mënu ma Lamine Baye waxal ma nee mi ngi ñaan magam jiit mu yàgg fi ci kanam njaboot ndax nee na fu mu toll mi ngi ci ginnaawam ak rakam yi di laat ak xale yëpp ñu jóge Touba ñuy jóge fu nekk jóge fa ndax bis bi ñor na leen ab sëriñ nag si la dee xamal ni ab sëriñ nii la mën a ab taalibeem bu amee jàmm gis la ba mu naqar gis te lii nga ko defal gis na ko kon nag maam ma yooyu ñu ngi ñaan yàlla guddal seen fan wér seen tiir ndax saat san baay dani baax baax na waaye bàyyi ñu baax ci la bokk ñu ne ko lu tax muy loo baax baax te bàyyi woo ñu baax loo doon def ci baax boo ko jógee fa la yem ndax lii commencé woo ko ay nit ak fa daan waaye laalu cat lañ fa daan def la fa yokk waa dellu ginnaaw kon loolu bàyyi bàyyi ñu baax ko wàllu sëriñ bi yal na yàlla guddal seen fan wéeru seen cër sëriñ bi ñu ngi leen di ñaanal ngeen dool leen ñaanal ba lépp luñ ci bëgg rek ci lu baax ñu yegg loolu la si la dama noonu naa ko man mi wax ak yéen nag damay seen mbokk su geer laa jóge waaye suñu waajure dañoo àndal te loolu ñu fa àndal jënd wuñ ci dara kon noo ngi ñaan yàlla guddal seen fan wéral seen cër guddal seen fan wéral seen cër jërëjëf si la ngeen dolli ko ñaan dolli noo ñaanal ñun ñëpp nag billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah zeydina mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokku jullit yi mbokk fi teew ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke suñu borom yàggal ko fi te di yëkkati suñu kàddu ci kilifa Serigne Moustapha Sylla mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi waaye nag ànd koo ki rakkam muy sëriñ Sylla Sylla mi ak ànd koo ki eh, doomam muy sëriñ eh, Abdou Baaxe mi nga xam ne moo bàyyi ko Touba te waajuram daa teew fii ci jotaay bi di ko ànd ak ne ak mbooleem waa ci léegi ñu fekk si ak sëriñ Bàcc Sylla waaw sëriñ bi nag nee na mi ngi leen di sant ndax lii ngeen def day jëf ju rëy xam ni eh, ñi ngeen ñi ngeen bàyyi muy seeni kilifa tey jii day xam ma gu baax lu muy jariñ waaye ñoom xam nañ ko ndax li ñu dajale fii bu ñuy jóge woon Touba ñuy jóge ci la ñuy jóge faneen ñu ñëw jàng fi benn ay alquran rek bu suñ borom nangoo tuyaaba ji mën na cee dund ren ba déwén rawatina nag ñu jàng fi limu kaamil bi kon nag yéen war ngeen a santaat bu baax a baax it loolu da ci daa doon ñaari yoon ndax daje gi rek jokk mbokk gi ak suñ borom ni mu fonke mbokk kon eh, bis bi yaar daje na ci kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay ñaanal ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon doon fi jaamu yàlla te tey jii ku leen yeewoon ni leen du ngeen gën a gën a bëgg lañ lay wax mooy dellu àdduna donte as ndiir la ñu jaamu fa yàlla ngir am ab yóbbal buñ buñ terloo foofa kon nag bu ngeen dajalee nit ñi fii ñu jàng fi ay kaamil li ñu waroon a yittewoo pour ñëwaat fii ngeen defal leen ko kon euh, defal ngeen leen lu rëy loo xam ni képp kuy ñaan maanaam bu fi jógee bàyyi fi njaboot bu baax mel na ni ñoom lañ doon ñaan am ngeen ko ndax Serigne Touba moo ñu ko wax nee na ñu ñu nekk biir suuf te ji boo leen yeewoon ni leen kenn du ngeen gën a bëgg dañ naan la dellu àddina donte as la wa arxabul asiyaay lil amwaati raddun ila dunya maal ayaati walaw soyaatan faqat li yamaloo saaliatan tanfahum in xafadu yaakaar naa mi ngi ko ci masaalikul jinaan kon ngeen def yéen ñi nga xam ne yéen ngi koy taxaw eh, tey nam ko waxee ndax ñaan day jariñ ki nga xam ni mooy ñaan waaye day jariñ ka ka jiitu kon eh, bis bi eh, sëñ Moustapha nee na mi ngi leen ci ñaanal moog waa ci léegi yëpp ak waa Cumbuleen yéen ñi nga xam ni yéen a koy taxaw ngeen yàgg ko taxaw tey lépp loo xam ni nit yéene na ko ci suñ boroom defal la ko ba eh, lépp loo xam ni daal ñu ngi ko ci séenu ak di ko ci yéene yàlla suñ borom defal leen ko ndax it da ngeen di xam ni yéen ñi ngeen di ñaanal li ngeen leen di ñaanal dañ ciy jot te it ñoom luñ la ñaanal suñ borom nangu ko te eh, ndax dañ lay ñaanal maanaam yow nga yàgg fi ndax nga yàgg leen a ñaanal kon yu mel nii eh, mat nay bari mat nay fonk ndax it lépp lu nit leble ngir yàlla ëllëg sa njaboot dana la ko fay kon sëriñ bi nee na na góor góorgóorluwaat bu baax a baax nag ci bennoo tey fonkante ku war a mag jiitu ku war a ndaw topp ja ndax eh, genn kilifa ba muy dénk ak njabootam dañu leen woon na ngeen mel ni ak bale ndax bale di boo ci roccee benn bant boo ko damee mu damm waaye boo takee sayu bal bi yëpp boo damee du mën a damm kon booloo rek mooy li nga xam ne moo am njariñ te it eh, noonu lañu ko alxuraan waxee wala tanaasaw fa tafsalu wa tasaba réekum kon eh, kenn ku ci ne eh, na koy bàyyi xel te lépp loo xam ni yaakaar nga ni ngërëm ngërëmul yàlla nga ca bis bu set na ci xëye ndax ginnaaw fii moom fu ñu jaar jàll rek kenn ku ci ne na nga góorgóorlu ba eh, sa suñuy dem ci suñ borom rek mun góorgóorlu ba fekk ñu ci lu suñ borom ñu sant bu baax a baax xëy na sëriñ bi moom kàddu na mu mu matani Euh, mënuñu ko sax waaye euh, lépp lu ci jub rek ñu ngi koy gërëme yàlla ñu ngi ñaan suñu borom daal ñu teewu ko ay déwéni déwéni déwéni di ñaan képp ku ñëw ci bis bi boo fi indi woon ay yitte yàlla na ko yàlla suñu borom saafara boo fi indi woon ak wéradi yàlla na ko yàlla saafara ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan rek ñu yàgg koo teewe barke Seexul Xadim ñu jógee fenn rek ci mara bi sëñ bi dañuy daal di ñëw fii rek jox ki nga xamante ne si moom ci kilifa yi la euh, mu am ay kàddu yu mu ci sànni rek xam naa du yàgg sax waaye nag moom ginnaaw mënta ñàkk moom faw mu am euh, kon nañ ko daal di def rek bisimilah sëñ bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. allahumma salli ala sayyidina muhammadin qawli. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu àq yi ñëpp di nekk fii di Touba Cumbuleen si bisu sëriñ Massamba Diouf te muy bis boo xam ne bis bu bis bu euh, bis bu bis bu bis euh, boroom gërëm di bis bu sun boroom sant ni ko sëñ Cheikh waxee léegi rek muy bis boo xam ne war na ku ne yëpp jullit ndax waajur yi bu ñuy liggéeyal ku baax barke lañu sàkku barke nag dafa bëri fu ñu koy yëbbu te du foofa jàpp na ne barke moom mooy ay oto walla mooy kër gu rafet wala mooy ay wala mooy ay soxna barke nag buñ ko dee wax mooy lu mel nii suñ sama doon liggéey kon liggéeyam naax saayut moom ab liggéeyam tamit riirut ndax ku gis xam ne am na ngërëmul mag ñi am na ngërëmul gaa yu baax yi ndax bis bu toll ni ku ko am euh, daanaka am nga barke barke moom mooy lépp barke moom la ñëpp di ñaan kon yàlla ñu yàlla tax si barkeem ak Seexul Xadim ñu ko bàyyi Serigne Diouf waxee léegi rek ndax euh, ñoom ñi fekkoon démb xam na ne kon suñ Masamba liggéeyal na ah, mag ñu baax ñi liggéeyal na suñ cumbu leen wax liggéey boobu naax saa yut ndax ñaan euh, barke képp kuy ñaan da nga ñaan bis boo génnee àdduna am ñoo taxaw sa digg ginnaaw. Ah, ah, di la ñaanal kaayam yi fi jàng yëpp ak sarax yi yëpp yàlla ki ko suñu borom jotaleel barke Seexul Xadiim te ñaan mi ngi mel ni eh, waa barsax da nga koy tiitaroo waaw da nga koy tiitaroo bu baax a baax seen biir nawle mi ngi mel te nga xëy suba rek ñu envoyé la benn wéef wala ñu envoyé la xaalis li su xol li sedde waa barsax yi boo la ñu ne ñaan noonu la ñuy mel noonu la ñuy sante balaa na sax ku amul ak njaboot fii si àdduna wala amul ku leen ñaanal euh, ni lay ñeewantele danaan moom di diw xanaa amul ku koy ñaanal wala diw xanaa wëccu na njaboot si àdduna moom di ba nekk barsàq ba léegi mësuñu koo gis fu ñu ko yónnee ñaan wala moo tax euh, képp suñu borom bàyyi say waajur wàcc la ginnaaw loolu man di ñaanal di ko def loolu mën gën a taxaw di génne la ay ko def ndax euh, loolu da la ñu doon ñaane yàlla ñu si adduna baraan na ñoo xam ne tey say waajur bu suñu woon saa bu ñu toogee di ñaan yàlla ñaan yàlla yow mii nga xam ne yaay seenu njaboot ñu mujj leen si àdduna ñoom ñu jiitu la ji àll ak yow ma xëy loolu nag li ñu jublu mooy nga ah, di sàkku seenu ñaan kon bis bu mel nii dafa ah, dafa mat di bëri lool. ñuy na si kàddu yi ndax xam na ndigal la rek wante nag ah, xaw nañ see eh, lot lool si kàddu yi ñu ngi jégg lu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah jégeen yàlla baax na eh, eh, li gën moom mooy sellal liggéey bi rek. waaw te du ko rafetal fii yàlla yóbbu waa rajo yi ba leen dégg ak télé yi yëpp leen dégg ñu dégg leen fi si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla man na yàlla ko yàlla def barke Seexul Xadiim yàlla seen lépp gën a jëm kanam te yokk mel ni ay télé barke Seexul Xadiim am na si yaakaar bu baax dina ñaan barke xaj xaj xaj leen ci njawaay njawaay yokk leen sa kaw sa kanam si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Ah, Waly Ngor mbokki Info7 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ziar mbokki euh, Touba Cumbuleen euh, ñu ngi fi nag ci bés bu màgg bi nga xamante ni moom la ñuy amal Mame Samba Anta Diop fii ci diwaan bu Cumbuleen euh, fi nag tey ñu toog ak ki nga xamante ni si sët la ci sët yi ñu koy wax Serigne Ahmada mu amoon ay kàddu yoo xamante ni si da ko bëgg teg ci kaw bis bi nga xamante ni si bisu maamam la suñu Ahmada ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom ñëw gi nga ñëw suñu borom def ko tànk yiw Euh, te it euh, li nga xamante ni si mooy bis bi daal bokkoon ci li nga xamante ni si ñu am luñ la ci doon laaj ak lan moo ci sa xalaat ban gis-gis nga ci am euh, nga jaarale ko fii ci Info 7 TV. waaleykum salaam boo xam ne bis bu ay mag a ko sos mag ñi ñu baax lañ ci gi ma Samba ba ci Moussa Rasek ba ci Mame Bali Yong ay mag ñu baax ñoo sos bis bi man li sama tànk mooy fii yoon wi ngan gi neex na ñaan fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. samay mag ñoo ñu ma yónni Faat Joxaane Faat Joxaane Ndey Caam maam Awa Ndar ay Bas Caam Seex Caam ñoom bëgga nañoo ñëw nag yéen a teew waaw waaye nag wér-geeg moo ko mayut man nag dañ yebal ma teewal leen ñooy samay mag ñoom ci sët leen kon nag lii ñu fi ñaan ñii yàlla na ko yàlla nangu alxuraan yi fi wàcce kaamil yi yàlla na ko yàlla nangu waaw xale yi ko sol ñoom maama yàlla saxal leen fi ñu koy def chaque année yàlla di jàpp jàppale ñu koy def barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na tamit mënut a bëri asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. baal leen ñu àq baal nañ leen àq yàlla nañu yàlla buur ba la mbir mi nag moom daanaka ni amatul sax luñ ci lu dul sant rek sant daal moom la ñuy def ndax comme que lii ñun la waroon ñun ñi nga xam ne ñooy doom yi sunuy sët dem ba mën ñu koo taxaw di ñu ko taxawul taxaw bu rafet. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen baal àq di leen balu àq ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi loolee sant Serigne Touba di ñaan Baye Massamba juuf yal na ko yàlla tabal ci àjjana yi gën a kawe ñi moo xamul ci Njaay laa tudd dëkk fii ca Ndewer turandoo Massamba laa sama cant nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem la tàmbalee ca Gumba Juuf may mag di góor ka ca topp di jigéen di yaama ba ci musaale kenn koo ci xam te ni sosu si ñoom la fu doomi Masamba nekk bàyyi la may wax fuub sëtam nekk maam la may wax fuub jarwaatam nekk nijaay la may wax ba ci bi ma nee salaamaaleykum kër Abdou Wade laa jëkk nu nuyoo fi sama na yaay na nga def man nag li may wax ma wax dëgg yàlla am naa mbégte moo xam te ni bii nii pour ñu xam ma rek xam ni man bàcci laa tudd sant jaay dëkk nga di turandoo ma Samba juuf bàyyi ma Samba li ma wax yal na yàlla doolee seral ay yaxam tàbbal ko ci àjjana yi gën a kawe ni ma ko wax tam doom sët jarbaat yal leen yàlla defal fan wu gudd bu ànd ak barke yal nañu am te am jàmm yal nañu am te am jàmm bàyyi ma sàmba li ma xam sëriñ joon mi dëkk xàtt daa xam ne bàcc lañ ma tuddee muy waxtaan ak man ni ma bàcc ma ne ko ah, mu ne ma sa bàyyi yóbbul naa ko juróom-yaari nag Tuuba ci sëñ Fallou moom sëriñ joon yi xaw ma ñii set yeeg ñooñu am na suñu ko xamul waaye dama koy wax man sa bàyyi yóbbul ah naa ko juróom-yaari nag ci sëñ Fallou kon loolu firnde la yoo xam ne bii kii mati mi ku mu ku nekk deru jaxate mati mi bàyyi la may wax doomam ñu ne maam ndey monsieur Koki ay doomam ñu sant Béy papa Thiam mi doon wax dëkk ca mbër lépp ak ñu sant ñang ñu sant mbaw nekk Mbambilor ak ña nekk Touba ñëpp li ma am ci sama tur bi Baye Massamba juuf awma ko ci ñu sant Njaay wóor na Sëriñ Tuubaa li ma ci am ko ci ndax am naa ay jarbaat yu sant Njaay te waxuñu ma ko am naa ñu sant neneen te waxuñu ma ko ay sët waaye mboole ku sëtu ci ma sàmba ak ku doomu ci moom ku ne amul ko muy saalawlu bàyyi maam nijaay bàyyi maam nijaay te Abdou Diouf ngénte li mujj am fii ci këram xamu ci gune yi ku ci doon génne boobu damaa wér ba ñëwuma ci kodd moom ma yónnee ci kër ga xamu ci gune yi ku mu ci doon moom daal man daal wax dëgg yàlla sama xol sedd moom daal li ma ko waxee rek li leen yàlla defal fan wu gudd bu ànd ak barke yàlla defal leen ngeen am te am jàmm ku ma xamul woon bàcc jaay laa tudd di ko ngay war di turandoo ma Samba Diouf waaw li ma ko wax mooy li am ñu ngi sant di gërëm. ñu ngi leen di nuyu sant sunu borom di julli ci yonent bi di ñaanal mun Muntaxa mu yàgg fi te wér képp ku fi ne rek na ko ñaanal mu. xalifa Tidiane ñëw képp ku fi ne rek na ko ñaanal mu yàgg fi te wér ndax te bis bii moom doon na bis boo nga xamante ne nii lu rëy ci ñun la am na solo trop wax dëgg yàlla maa ngi sant Talla Diouf comme ni ko Pape Thiam mee waxee rek wax dëgg yàlla mënut a ñëw waaye dem ba tey téléphone am bi mi ngi woote kooku nag kon xam nga ni moom teew fi dong ko doon doy waaye teewal nañ ko fi waaw képp ku di sët rek ñu ngi lay ñaan nga gën a fas góorlu ci bis bi te xam ni kenn defalu ko kenn. lu ci waay def rek sa boppu nga ko defal waaw man na kër gi ñaari cër laa fi am waaw bu ma neexee ni ndeyjaay bu ma neexee ni baay ñu bari nag xawuñu ko ci gone yi xam naa ni wallaahi ma neexee ni ndeyjaay bu neexee ni baay waaw ñaari cër laa fi am ñu bari nag gone yi xamuñu ko ndax bokk gi léegi ñu ko doon leeral nekkatuñ fi ah? ñu bari le ñu ko doon leeral nekkatuñ fi ah waaw kon nag ñun ñëpp benn lañ waaw ndax man maam Moussa Seck maam la ci man defe naa moo njëkk samp kër gi waaw màggat ndee la mooy sa maam waaw maam may Diouf moo ko yoroon moo jur sama waajuru jigéen waaw kon nag kër gi moom ñaari cër laa fi am waaw kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax nag mënewuma ko te xaw gën a ñaax gone yi kii ci juddu démb dib sët na gën a pas-pas na bokk ci ñaan gi bu doonub dërëma sax yaayam defal ko ci walla baayam ci ñaar ba ñu sant ko waaw pas-pas la daal waaw ku ci gën a jëf daal gën a feeñ rek waaw ku jëful it nag moom ah li ci des si ak suñu borom a xam waaye daal na ñëppuy jëf rek ñëpp xol yi nag moom ànd nañu wax dëgg yàlla ñëpp wax dëgg yàlla sant nañ leen gërëm leen waaw ndax njiit dafa mitti dinañ la di nga boole ñàkk sa alal ak ñu lay wax lu ñu la wër wax waaye nag lépp ku njiitu moom ku yanu rek yanul waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam. jërëjëf waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wajaal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm di leen xamal ni lii ñu taxawe fii lu rëy rëy la ndax benn fital la boo nga xam ne day jam ñaari picc ndax dañ fee teew ngir euh, ñaanal waajur yi leneen dolli ko ci muy euh, euh, dundal ak mbokk mbokk yi gisante fi saafonte comme ni ko yàlla waxe ci alxuraan rek yaa ayyuhan naasu taxu ràbbakum kon ndigalul suñ borom la allazi xalaxakum min nafsin waahida wa xalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa wa taqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham kon kon mbokk moom borom bi subhanahu wa da koy laaj inna kaana aleykum raqiba teg ca ni yàlla mi ngi leen di fuglu fu ngeen toll kon mbokk gi dañ ko ciy dundalaale di ci ñaanalaale waay jur yi di suñu maam Samba Anta Diouf di lu ko mat ndax kenn ci ñun ñii bu fekkee ne yàlla dogal na mu wàcc liggéey eh, dina bëgg ku ko ñaanal waaw ndax ni ko sëñ waa waxee rek wa arxabul asyaai lil amwaati raddu ila dunya ma alxayaati nee na li ñi ñi faatu li ñu gën a bëgg buñ dee boo leen fëggan leen lu ngeen gën a bëgg ñu ne dell àdduna walaw suwayaatan nee na doonte benn minute la li yaamalu saalihatan tan fahum in xafalu ñu delluwaat àdduna ngir liggéey fa loo nga xam ni dina leen jariñ foofee ñu tëdd waaye xam nga loolu mënut a nekk kon nag euh, am doom joo nga xam ni wala sët boo nga xam ni wala mbokk moo nga xam ni dina la ñaanal loolu kenn ku ne bëgg na ko kon yàlla na yàlla nangu ñaan yi bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maama Samba nag wax dëgg yàlla euh, mbokk sëtam yi ak mbokkam yi nii rek lañu mën mel ndax comme ni ko wal alxuraan waxe nee na wal bala baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi wallati xabusa laa yaxruju ilaa daa nee na gàncax gu baax moom gàncax gu baax rek lay mën a génne waaye ga nga xam ne dafa xaw a kiimaane tamit du génne lu dul lu kiimaane kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax ci côté boobu di ñaanal maama sàmba ak mbokkam yeeg doomam yeeg soxnaam yeeg sët yeeg ñëpp yàlla yërëm leen te jéggal leen bi jaaxe rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sant ñépp ñi nga xam ni dagg nañ seen yitte ñëw fii ci bis bii waaw di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal xéewal di leen ñaanal sutura yàlla nañ ko yàlla boole defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gis nga Baye Bàcc Njaay mii ah, ak ak tëgg faal tëgg faal mais di doomi Baye Demba Faal ni ma tudde doom turu doom woowee mu ma tudde giñ naa ci sëñ Tuubaa xama woon fu këram féete xam nga lu ma ko may ah? li naa ku liggéey añ sa ligg saa bàyyi ma ko may waaye du sama dox du sama wax dégg li ma leen di wax gis nga baay Baye Bàcc Njaay mii noppi gone yi kere ba muy takk soxna sama baay daa takk ko sareet teg ca ab gàtt maa ngi koy fàttaliku akub ceeb akub diw dé déglu leen ma ma wax leen dégg dégg nga yónni sama yaay ni ko demal joxal ma ko bàcci njaay nee ko man ma sàmba ku ne ci man ma ne ci yow waaw kon kii dégg nga li ma la wax fi yu baree bari xam naa ko damaa mën a dem nag waaye yéen ñi ñëpp kon kenn ku ne ne saa baay defa nit ñi dama leen koy wax wóor na yàlla waaw moom bàcc mii waaw dégg nga jërëjëf kii kii bàyyi la ci nun waaw dégg baay la moo moo tëgg faal mais waaw. léegi sama bisu baay bii dama leen di sant yéen gone yi maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw ndaxte kat mujjewu leen ko mu réer mujjewu leen ko mu réer sama xol sedd na guy ni sama xol bi sedd yàlla na ni seen xol yi mel ci barke sëñ Fallou ndax saa baay mii daa liggéeyal sëñ Fallou Mbacke. liggéeyal sëñ sëñ ma Masila maam sëriñ ci la la jëkk a liggéeyal teg ci sëñ fallu dée nga ngeen ñëw nag yéen ñii rafetal ko bu baax a baax a baax waaw yéen a ngi dox doxiin wu rafet doxiin woo xam ne nii am nañ ci yéen yaakaar man de tey bu ma deman àllaaxiraatam sama xol sedd na yaakaar naa lii ngeen di def ah day am na tànki kanam waaye amul tànki ginnaaw ndax fi ngeen teg seen tànk lu rafet la lu jub la waaw sant naa leen cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ku ma sàmbaante jur nag ku ne yaakaar naa jom rek ngay mën a am waaw ndax dana ko daa nekkal ci tool yii ba bëccëg jot mu ñibbisi ci kër gi ni fa pit ab gàtt rey ko daqaar gee ah fa koy añee buñ ñëwee buñ ci toggee añ buñ ci toggee reer fii lay taxaw ci buntu kër bii soxna caama nga ca ngéejeel yàlla yal na yéexam sedd bu ko defee mu naa sama ñeexus doom si sëfuta bu ko defee gone yi naa ko ah kay ah <laughs> loolu xam nga ni <laughs> kon saa baay moom macha allah ay mbiram sax mënuñu ko waxtaanee ba mu jeex. waaw nguur nguur rek la bëggan lu neex ak njabootam rek la bëggan yàlla na ko sëñ Touba teeru. ci barki sëñ Fall. sama xol sedd na guy yaama juuf mii nag damaa yónni. te man mënumaa wax sama xol sedd na guy fi mu ne maa mënumaa wax waaye nee na lu mu war kon a wax man mii maa koy waxal dégg nga yaama nag moom danoo danu ko sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mm-hmm. yaayam na koy jaxate la tudd amu fi lu góor moom yaama mii la am ak ku ñuy wax musaale mm-hmm. waaye yaama mii nga xam ne boo déggan ni tey ah, mooy doon xalifa bi mm-hmm. moo waral na doon xalifa waaye taxaw na taxawaayu xalifa ndax at mu jot mu lakk booli beñeem bi teg ci tàngal ji ak ndox mu sedd ak yëpp andi ko fii kon xam nga ni taxawaay na taxawaay kilifa waaw yal na taxawaay bi yàgg yal na dund ak jàmm ba di la weer ak a were barke sëñ Fallou sun xol sedd na guyi nag muy Laat juuf di Maam Mor di Mama Mee ñoo fi des ci góor waaw ñi Masamba Meñ ñoo fi des sëriñ mii nga xam ni nag mooy doomi Baye Matar géy na ah moom diñi ba nga caam ndeyam nga dëkk Badar ñu baax lool tafu rekk ci sama waa kër baay ñi waaw kenn xàmmee wuñu woon ba fii mu ne kenn musunoo xàmmee mi ngi nii dafa toxu waaye sàngal kam sori na lool waaye lu xew mu dagg paas ñëw ànd ak rakkam jee waaw sama xol nag daa sedd ci ñoom buy ba ni ma ko bëgg a waxee ñëpp mënu ma ko ne wax yal na seenub taxawaay yàgg ak góor a juuf ma nga xam ni ma nga fee yónni doomam jee muy Cheikh Mbacke mu ñëw yal na yàlla ak sëñ Tuubaa yàggal seen taxawaay nii ngeen ko ànde daal suñ fi nekkatut itam na ngeen ni ànde booloo te na ko sunu bàyyi daa defee di seddantey cër yéen itam ngeen di seet noonee ngeen di ne def waaw kon da ngeen di yokk waaye du ngeen wàññi ko yal na leen sëñ Tuubaa taxaw barke sëñ Fall taxaw ma bi teew maa lay nuyu ci sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay di ñaan ci kattanu yàlla nag nii ñu fi tasee daaw yàlla dimbali ma kenn manqué leen fi tasewaat déwénee ñoo ngi ñaan ci kattanu yàlla yéen ñi taxawal bis bi yal leen yàlla jàppale ñu fekki ko tatal ko maama Samba moom wax dëgg yàlla moom luñ ci wax rek doyut ndax dëgg yàlla moo liggéey moo ko sonn wante tamit lam liggéeyul lépp dara niilu ci nag ndax ñun ñi sëtam rek foofu waay ne rek dañ xam ne kii moom sëtu ma Samba la yéen ñi di ay doom yéen ñi suñuy baay tamit muy bàyyi laat mii di bàyyi Mor Diouf di bàyyi maama ñoo ñoo des ci njabootu Maama Samba ñooy suñuy baa ñoo nekk suñ kanam léegi nag ñoo ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla dooleel leen dëgëral leen ñu yàgg fi lool ba mën noo jiite di ñaanal ak suñu bàjjen yi muy bàjjen yaamee ak bàjjen ami bi bàjjen mati mii yal leen yàlla defal jàmm ndax ñooy ba ci mbokk dara ba ñu ci mbokk dara ñun nag dañ di ay gone ay ndaw lan waaye nag nan yor jukkoy ndew di ruuru te bañ a bëgg a feeñ bu nu ko defee rek nun jiim dinañ ko man waaw léegi nag ñoo ngi ñaan ci kattan yàlla yeneen yàlla dooleel jàppale ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp yeneen yàlla defal jàmm ñu jógee ci kër gi tamit ñoo ngi ñaan yàlla fañ tëdd dina leen dàqal fi ñu jóge waaw léegi nag suñu xol moom daa fees waaw kon lu ko wax tey moom <laughs> ngi leen di saare tam di leen baal di leen baal nu àq tey jël kàddu gi ba léegi rek nag ci turu Mamor Diouf sunu mag ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñaan gi ni mu demee nii euh, vraiment am naa ci yaakaar ci ni man yaakaar naa sëñ Mamor moo fi ne muy sunu mag waaye man mii ngeen ko defal wax dëgg yàlla lu ci bare bare bare bari li ma ci daan dal lépp daanaka ni daf ma tiim rek comme ni ma leen ko waxee woon rek kon xam ngeen di man moom cant gi mën mii ci man la war a tàmbalee sant naa leen bu baax a baax a baax a baax. di leen ñaanal yàlla itam yàlla euh, ñu fekk ko weer wi déwén rafetu fekkin jërëgeen jëf sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla jàmbaar ngeen nu koy def lépp rek ngir jëmm yàlla ndax suñu waajur wit kat wax dëgg yàlla lim daan def lépp euh, vraiment yàlla fay na ko yonent bi fay na ko Serigne Touba fay na ko waaye jëmm yàlla ji rekk la doon def assemblée ma la ndax lenn lu muy def pour nit moom wax dëgg dawul am da lay defal pour sax kenn bañ koo xam mais nag résultat bi génn na parce que vraiment ay mbiram jafewunu nag moom wax dëgg yàlla jafewunu de vraiment kon euh, yàlla mu ngi koy fay mbiram waaw lépp lu mën a sa defal nit du bëgg sax nga xam ko nun bari da loo xamante ay gone la waaye am na lu luñ ci xam lépp lu muy def rek yàlla rek mooy tax mu di ko def jërëgéen jëf sant nañu leen di leen gërëm ak Serigne Seck ñëpp ñoom Mor Wade ñi Abdou Wade waa Wadeen vraiment ñëpp daal sant nañ leen muy góor muy mag muy ndaw muy jigéen taxawaay bi rafet na wax dëgg yàlla wax nag xam nga vraiment man mënewu ma ko noonu bu baax góor ga waxoon na ni i tamit am na loo xamante ni du daje ci nit jëf jóob ak wax jóob mënut daje ci nit il faut da ngay jëf wala saat ngay wax ba sam ñeex sa forom rek waaye mënut a de <laughs> loolu rek la jërëjëf moom daal sant ma mënut a paas sant wax dëgg yàlla sant nañ baax ak baay Bàcc Bale Baye Bàcc Jaay mais itam vraiment taxawaayam bi tey euh, vraiment taxawaayam bi rafet na lool macha allah waaw ndax fi mu nekk nii waaw. Mhm. wallaay ndeysaan mhm. dëgg la wallaay ndeysaan am lu mu génne. ñëw mm-hmm. bokk mm-hmm. ko. waa Kër mm-hmm. mu ji. li koy waral mooy. fi ne boo duggee ci këram gii nii. Ah, ah day feeñ ndax boo jógee xool ne. Euh, néegi sëñ Fall yi fee la nekkoon xam nga moo sut ci kër gi de gis nga ko bañ ke dalee di defar ak léegi janj baa nga kër a néegam foofu la ko defar seen nga nam ba léegi kon loolu moom lépp ak cant la rek ñu ngi leen di sant di leen euh, ñaanal daal yàlla lépp lu ci waay def na ko suñu borom ful ba bu ëllëgee mu man lu ko raw te bañ euh, werante ak kiyanteeg yooyu yëpp te ànd rek lépp du benn man daal noonu laa ko bëggee man wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf وجعلت وجهي